dal leen a jàmm mbokki internet di nuyu si ci xibaar lu ñeel mbirum Pape Alé Niang nag ginnaaw denc gi nga ko denc fële ca Ndungu Siin weetu ci benn yoon ngir li nga xamante ne bi mooy ay journaliste yu takku fii ci biir réew mi ñu ngi jóg ànd ak moom ngir jàppale ko ci xeex bi nga xamante ne bi mi ngi ci waaye kat ñoom journaliste yooyu nee na duñ bàyyi benn yoon yëf yi mën a sedde noonu ndaxte kat ki nga xamante ne bi mooy Pape Alé lii mu def dara ne ko ci ndaxte kat ab journaliste leen ko xamee mooy génn ay xibaar bu génn wuti xibaar lan lay liggéey xanaa toog di xoolee loolu tax kat ñoom ñu fipp taxaw ci digg mbedd dakaaru yi fépp fees dell nee nañ kat ñuy wax libéré ki nga xamante ne bii mooy Pape Alé Niang te duñu tàyyi duñu bàyyi li fekk bàyyi woon Pape Alé Niang mu dellu fa li nga xamante ne bii mooy ca euh, këram ñoom nag kenn ci ñoom di Pape di Fall mi nga xam ne ne kii di Pape Alé Niang góor dëgg la waaye nag koo xamante ne bii bañkat dëgg la ndaxte lii kat nekkul ne jamonoy mag Sall ji képp la ko def yàgg na koo def ci jamono ji nga xamante ne Macky Sall sax mu ngi doon opposé fii ci biir réew mi noonu nag mi nga xam le ne kii di Pape Alé Niang dañ kaa war a bàyyi mu dem ñibbi këram waaye nag nee na li nga xamante ni mooy xibaar yi muy génne nee na xibaar yi ko raw foofu yor nañ ko waaye dañ koy ragale génne ndaxte carte nee na buñ ko génnee xëy na leneen fekk leen ci lu mel ni looloo tax teyit it mi ngi xam ne ne di dànkaafu li nga xamante ne bii mooy doxalinu réew mi ndaxte kat nee na ni ñuy def bu journaliste waxee ñu jàpp ko nar ko tëj nee na loolu jëmalewul réew mi ca kanam te it li nga xamante ne bii mooy journaliste yi dañ leen war a bàyyi ñoo nekk ci seen indépendance nekk ci seen liberté ndaxte kat ñoo yore li nga xamante ne bii moo di réew mi.